mbokk yi cant ak ngërëm na leen seen ak teewlu ñaari waxtu jot na sëngam fii ci seen makkaanu chaîne de télévision 7TV bisimila ñu door bi la jotaayu xibaar ci yàttal doore ko ko jukki la ca gën a fës bokk na ci jamono ji naqar ak tiis mi des rek ci biir mouvement syndical ginnaaw Mademba Sock jàppale nag ne jamono ji mouvement syndical ñàkkati na rek kooke di Yàlla Dieng nekkoon nag secrétaire permanent bu UNACOIS Yeesal moom nag jàppale nag ni mu ngi tolloon ci fukki juróom-benn fukki at ak ñaar jàppaleen sax ne moom moomee ci ginnaaw lu mel dañu ko jébbal boromam na ngeen ci talaata gi foofee ca boruka Kébémer ba léegi rek ci boruka xar mi jàppale nag ni démb ca boruka Medina Gunaas fitna jib na fa ba daal di sax am yàq-yàq yoo xam ne waral na ko ci bësuk tabaski bile nit ko fa faatu ak ki gaañu gaañu ginnaaw nag euh, jàmbarloo yi nga xam ne jot nañu ko fa nemmeeku ne ni tey jii nii sax kooke euh, di jëwrin bi gàlloo lépp jëm ci biir réew mi di Jean Baptiste Tine ñu ngi ko fay xaarandi ngir rek amu xool ba saytu yëf yi ana fan la daal di euh, toll. ci bi la jotaayu xibaar tam mbokk yi daañu àddu jëmale ci waajtaayu ko nawet kile nga xam ne door na ci yenn gox goxaan yile ca biir Sénégal Dakar ba des rek desandi tey jii di ko xaar waaye nag laata yëf yi ni mel di agsi jàppe nag ni benn pàcc ci askan wi ñoom ba léegi fàtteeguñu jafe-jafe yi nga xam ne rek jot nañu ko dund nekkee ni daaw ñoom ñoo des rek tey jii nii di fësal seen ak njàkkare ci waajtaayu ko nawet bile mbokk yi kon mi ci tënk lu moom mooy li fi gën a fës bu ngeen taaxiloo tuuti bàkk bi noppee at ak linimel lépp dal di daje ci bile bërëb bile canal bu nekk ci biir capitale bu Sénégal fii la ndoxu taw yu jóge ci zone de captage ak ay koñ yi ko wër di teer saa su nekk mu nekk li nga xamante ne dafay jur ay inondation saa su nawet jotee loolu waral ñi dëkkee bor boobee daal di rek ànd ak tiitaange ginnaaw rek bu ñu jéggee saison de pluies bi. ah nawet bu jotee kay ñun suñuy fiti yëppay dem. ndox mi moom suñu biir yi lay toll dañu yóbbu suñu doom yëpp dénkaane nañ leen. yàq de yàq liggéey. ah bu tawee duñu génn dañuy xuus. dañuy fay saret ñuy jéggi léeg lu duñuy sax xëy liggéey nawet bu ñëwee dañuy tiit duñu mën a dem fenn dañuy mujj obligé toog si biir kër gi ak suñuy doom. ndox mi fii la mën a daaw tuuti ndox mi yóbbu ma. ñenn si ñu fa yeewoo nag am njort gu rafet ginnaaw bu ñu daal di wee defar bi les ponts ñu jàpp ni que ren gi duñu dundaat li ñu daan dund si at yi weesu. yaakaar naa daal bu dee am na machine yu koy pompe mu jàll inondation boobu ci problème kanaal bi mën naa wàññeeku. ba tey nag mi ngi chantier pareegul mais yaakaar naa ne nii nii nii moom am nañu xel mu dal nii. bu ndox mi ñëwee moom du fi taxaw moom. waaw ren moom am nañ yaakaar ne moom wax dëgg yàlla moom euh, du demee noonu ndax daaw rek biñ koy defar pareegu rek wax dëgg yàlla ndox mi moom macha allah tane woon na wuuteeg année yi passé daal. waaye nag ñeneen ñi daal di rek jàpp ne que donte ne sax que ñoo ngay defar kanaal bi waaye nag am na lu si manqué te nag mbir mi dafa xaw yéex. liggéey nañ ko ba pare bassin bi dafa gën a tilim xam nga. salda yaa ngi nii waaw booy fi ñuy dugg di foo di fi def lu ne. liggéey bu pareegul moom su ko fi newee. amul nawet bés bu ne. bile soxna nag am juróom fukki at ak lu teg moo ngi fàttali ko li ko daloon loolee waral nekk mu daal di fiy jëmmal lu yees. palanteer yi li mu nekk ci suuf yëpp dama ko kuulee ci biir ndax moo la ci génne lii daal li ñuy dëkkee. ci njiitalu farawu ndakaaru ak ñi nga xamante ne nag ay bonne volonté lañ dëkk ci quartier bi ay coppite daal di nañ ko fi nemmeeku naam nag soxal toppatoo gi ak canalisation bi loole moo des. mais am na boo yoo xam ne ñu am volontaire dañuy dugg ci kër yi di ñu dimbale di dindi ndox mi. mais foo day am loolu moom mënul ñàkk ñi ñaan autorité yi tamit ñu jàppale ñu ci. avec Barthélemy xëy na tey ñëw na changé pavage yi xam nga ak assainissement bi fi état defoon état bi fi jugee moom. foos yi daal nañu ko dimbali fii del ni ko ba mu set waa te fii bu taayee ndox mi day gën di yéeg te foos yëpp la ubbi tamit yëpp di wal di ñëw ndoxu foos yi yëppay jaxasoo ndoxu taw bi te loolu baaxul suñu xale yi niñ ko daan amalee at bu nekk waajtaayu nawet bi ñoo ngi ciy def seen kéemtalaay kàttan dina àgg balaa nawet bi di daal di door yile canalisation yiñ fi defar ndaxam mën naa dékku ndox mi fi nar a teewul benn yoon yi yeewoo fii ci xaar yàlla di yaakaar ne rek nawet gi dina jàll ci jàmm ba bañ leen yàqal lu bari jukki bokk na ci rek mbirum euh, ndaw yi nga xam ne daal ñu ngi des ba léegi rek ci biir dëkk bi dogaale desandi nañ tam ma di ko waxtaanee jamono ji ñu toll ni nag dañu ko seetlu rek mu tax nag jamono ji rek ñoom ñooy nga xam ne daal ñu ngi koy amal ñu ngi faral rek di leen seetlu ci boruk moto ya loolu nag des tamit di euh, jural tiitaange askan daanaka defkatu ñawteef yi du ñu bàyyi dara. diwaan bu paas nii rek moo ci mujj am fii nii ma gis benn mu këpp benn saaga femme dawam mais mënoon nañ ko mënoon nañ ko topp jàpp ko mais toppuñ ko ñu bàyyi ko mu raw li ñu def ne amul sens ku liggéey ba bëgg dee ñëw jël xaalisam dako saaka ba këf ko yóbbu moom loolu baaxul yàq yaakaar la loolu nag indi njàqare ci askan wi ndaxte agression yi dañ koy faral di amal ak violence am na fi nag mais ñun comme bu làmb amee nii da ngay gis làmb day amee Grand Dakar wala mu am Fass bu ñuy romb fii noonu la ñuy def suñu rombee am na kuñ fi këf mu yuuxu fi ay ñeneen ak ñeneen sàcc yi ñoom même jigéen ñi romb sax dañuy dem ba marché si dem ci sàcc ñi nga xam ne nag ñoom ñooy dawalkatu moto cak-cak yi dañ leen di faral di tudd ci jëf yu ñaaw yooyu waa ji moom yàgg na ci activité bi wante nag mu ngi weddi bépp tuuma ñun jàpp nañ suñu moto yi suñu moto yi du pour ko quoi boo xoolee ba xool loolu noonu lu ma si gën a wóor moto yi koy def ay ay moto Beverly ay oxyteur yi ñoo koy def ñun suñu moto yaa ngi nii yóbbu kilaan la ñu xam am na yeneen heure sax boo fi ñëwee duñu la nangu yóbbu parce que wóorul quoi. yu feetu tabaski nekk na itam jamono boo xam ni dañ ci nemmeeku agression yu bari ñi nga xam ni ñoom ñooy faral di dem ci bërëb yooyu nga xam ni day faral di bari nit wax nañ ni jël nañ bépp matukaay ngir mucc ci defkatu ñaawteef yi. donc euh, mbokk yi foofu lañu ñu fay euh, seetlu bokk na ci rek jamono yi nag ne inspection ba fa nekk jamono ji la ñuy tere bokk na ci rek ci mel ni ay sabar ak i simb ca loolee di daara ya muy nag dogal boo xam ne tam parents d'élèves ya ànd nañ ci ñoom ñëpp man ko daal di ko tàccu candidat yi euh, yi war a yi war a def 6800 candidats lañu la ñu am pour certificat am nañu 3 988 pour Louga FM yëpp yem na fi ñu nekk ñun matuwaay jël nañu daal matuwaay yi yëpp ñu nga xam ne ba fi ñu toll euh, yi war. kayitu judd yi nag ci école bi bi muy tàmbali amoon nañ ci euh, junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaari kan demande yooyu yëpp nag ci ndimbalu président euh, tribunal juge Balde yombal na ko loolu ba ñoo ñëpp tey am nañu ay kayitu judd. ñu lancé après rek que Sénégal nañ am réaction spontanée sa doom li ngay daj pour ñeenti ko. war nga mën a daj lu ndaw pour déclarer ko. nga xam ne ñoo ngi ci ecole bi te am ay ay ay gàllankoor seen wér-gu-yaram ren nag ñu am ci ñetti kandidaat ñi nga xam ne ñoom ñëpp ñëpp ay jigéen lañu ñaar ñi ay kii lañu seen i gis-gis leerul waaw waaw kenn ki maanaam ak dégg-dégg na mu leer waaw ñetti kandidaat yooyu lu nu am te condition yëpp li ci war a def def nañ ko mu mel ni ñoom ñoo nag jamono ji rek dogu nañ ngir daal di taxaw baax a baax ci waajtaayu que l'examen yi lee ci jamono ji ñu nekk di jeexal année scolaire bi mbokk yi ñu waxtaan nag beneen nag coow bokk na ci rek jamono ji lu ñeel wàllug ville du Lol ba nga xam ne daal ñu ngi koy amal ca barug Jurbel loole nag tax li gën a am important ci liñ gën a bëgg ñu def ko ci danaan xàll aw yoon woo xam ni ku ci tegu di jëm ci destination bi mooy plan parce que boo amul aw yoon woo xàll mënoo wax ak kenn mënoo teg dara. projet bi nag bu yembee dana tax ba commune bu Diourbel daal di am ay infrastructures yu moderne mu mën a nekk ville touristique bu ñëpp ràññee. ville gox bu ñuy sukkali sukkali buy wëy dina tax ba askan wi bëgg a ñëw fii dëkk ci diwaanu jur Diourbel waaye loolu itam dina tax investisseurs yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy privé yi ñu mën a ñëw investir ci bile gox. loolee dina gën a yombalal dundinu askan wi. ngir nag euh, projet bi ñu doxal ko ni mu waree bu ñu sukkandikoo ci acteurs yi dafa war nag ñu daal di impliqué euh, ñi nga xam ni ñoom ñooy collectivités yi wër Jurbel euh, ci wàllug wér-gu-yaram mbokk yi li ñu cay waxtaanee bokk na ci daal loolee di centre national transfusion sanguine mi nga xam ne naka la mu taxawal bokk na ci. bés boo xam ne dañu ko jagleel may deret ngir nag sawe yenn ci malade yi nga xam ne rek am na nañu soxla bu ni mel te nekk di dund ay jafe-jafe. don de sang bi nag du lu bees ci ñun ndax commencé nañ ko di ko def depuis ñaari at te don de sang dafa nekk loo xam te ne dafa am importance ndax euh, maye deret euh, ku ne da nga ko war a def ndax boo ko soxlawul mën nga am ku la jege ku ko soxla te xam nañ ni lu ne mën na am feebar day am accident day am. ñi amee yenn feebare jigéen ñii wasin mu nekk loo xamante ni li ñuy ol tubaab di wax naan dafa précieux ndax deret kenn mënu ko conserver donc nit soxla ñu jox ko dafa fekk am na ku ko may ba pare moo tax parce que buñ ne benn poche de sang bu ne mën na sauver ñetti vie tey ji yaakaar naa ku ci nekk boo demee sa kër sa xel dina xaw a dal ni peut-être indirectement am nga koo sauver ñu wax naka mbokk yi ci paroisse Saint-Paul bu Grand Yoff doon naka amal ci yu bés bi loolee di seen ak kermesse bu mag mu yemoon nag ak ak ñeent fukkeelu ko édition mbir la rek moo xamante ni ci wàllu ko ci àdda dajale na mboolem maskan wa fay yeewoo muy naka loo xam ne tax na tamit ñu euh, gën a fëddali kóllëre seen ak diggante waaye tamit euh, coow la rek loo xam ne ñu ngi ko euh, tudde woon nag kooki rek nga xam ne ne bis euh, boo xamante ni for taxawaay bi nga xam ne 7TV am na ko ngir fësal lépp li ñeeloon kermesse bi paroissiens yi rafetlu nañ ko bu baax a baax. vraiment 7TV au nom de l'archevêque monseigneur Benjamin Ndiaye gërëm 7TV ci nu mu jàppalee paroisse bi pour tasaare lu muy def nii parce que lu am lu am solo la pour paroisse bi mais romb na paroisse bi ci commune bi la parce que activité. culturel pour la commune te xam nañu importance su culture ci biir. temu ren bi nga xam ne moo ñeel quarantième édition bi ñu ngi ko jagleel lëkkaloo bi nga xam ne dox na ci diggante askan wa yeewoo ca Grand Yoff donte bokkuñu fu nu jógee waaye ñuy dund ci jàmm ak salaam. jërëjëf Kajoor si seen mbokk yi cant ak ngërëm tam ñeen na leen ci seen nag teewlu ak ànd bi fi lañu jaar yëkkati bi la jotaayu xibaar dig daje ca kanam tuut lay doon lu ma loolee rek ba leen ngeen wéy di topp suñuy programme saa ngeen jëf jàmm ak jàmm